salle de conférence bi nga xam ne Serigne Sidy Nar Diène moom la doon liggéey ci résidence Khadim Rasoul bi nekkee ci Touba ma naan liggéey bi noppi na ba lépp loo xam ne jëmoon na ci finition yi àgg installé chaise yi moquette yi ba ci li nga xam ne moo di canapé yi kii di Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khadre mi nga xam ne moo tegoon xeer ba ca ba ñu door liggéey bi ñëwaat nemmeeku si liggéey bi ginnaaw bu mu noppee bi mu agsee Serigne Sidy Nar Diène dalal ko waxtaan ak moom. ginnaaw bu Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadir tool ni nga xam ne moo jëm ci mbooleem liggéey bi rafetluwaat bu baax a baax taxawaay bi nga xam ne Serigne Sidi Naar Dieng am na ko ci ak Pastef gi rawatina liggéey bi niñ ko liggéeyee ci qualité moom Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khadir leeral ko ne liggéey bi mën na sëkk amu fi lenn loo xam ne war nañ ko cee yokk wala ñu ko ciy wàññi. mu nekk salle de conférence boo xam ne dana jël lu toll ci junni nit ak lu topp ànd ak ak xarala yu yees yi. liggéey bi nag fi mu toll nii jébbal caabi xalifa général des mourides sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru moo ci des sëriñ Basiiru Mbàkke Abdul Xaadir fi la jullee timis daal di fay ñaan laata mu yeeweeku